ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi télévision Futur Média mbokk yi ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ah, ni ñu koy amalee àllarba bu jot ci waxtu bi ñu am mbégte ak yéen seen émission Faram Facce ak télévision Média ah, muy émission boo xam ni wàllu politique moom moo ko tax a jóg ah, ñu euh, waxtaanee tolluwaayu réew mi Faram Facce ko loolu mooy li sabab émission bi en direct ci TFM àllarba boobu jot ci waxtu bi tey nag ñu dellu am mbégte di ci recevoir honorable député Mamadou Diop Decroix jiite Agi euh, ñi ngi am mbégte dellu di ko recevoir ci Faram fàcce honorable député maa ngi lay nuyu. bisimilah bisimilahi rahmaani rahim euh, maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa di la fay. jërëjëf waaw mm-hmm. ah, wax naa ko honorable ku wax euh, honorable député wax assemblée nationale dañ fa génn nag ci marathon budgétaire boo xam ni ñi nga xam ni ñooy waa assemblée député yi ak ministre yi. Euh, daanaka daje nañu mu nekk loo xam lu am solo la at bu jot ñu nattal ñi nga xam ne ñooy ministres yi seen ay budget euh, ku ne xam na ni loolu assemblée nationale député yi ñoom ñoo koy def teg ko ci seen loxo euh, am du du ay yoon yoon nag daanaka yaa ngi koy fekkee mais bi nga xam ni génn nañ ci ci législature bi nga xam ni ci nga nekk bu mujj bi maraton bu mujj bi ban enseignement nga ci tiire waaw pam nga maa ngi lay gërëm maa ngi nuyu itam ah, ñu nuy seetaan mhm. ah, assemblée nationale euh, dafa nekk ci yoon mhm. euh, kuréel gu ama ama am solo penc mu am am solo ci réew moo dem mhm. mm, ci ni mu war a doxe parce que assemblée mooy autoriser gouvernement bi. Mhm. Euh, maanaam moo koy jox li mu war a mën a liggéey. Mhm. fi mu ne bu assemblée bi ne du ma voté budget bi euh, réew mi day nekk ci difficulté. Mhm, naam ñoom am nañu ay seeni pexe yu ñuy war a mën a mais day nekk ci difficulté. Euh, kon lu am solo la. mais man ni ma gisee. liggéeyu assemblée ak ni assemblée di liggéeyee dafa bokkut mhm. euh, du budget bi ni muy ñëwee assemblée noonu la fay génne maanaam xam nga tubaab dafa am lu ñu naan virgule mhm. wolof xëy na nekk ko tarfatal ay ni mhm. du ci soppeeku waaw ni mu ñëwee noonu lay dara du ci soppeeku ok daanaka da nga naan sax est-ce que jar na ko parce que ni muy dikkee lay génne Euh, te loolu jaaduwut euh, moo tax député yi aussi bu ñuy wax ci budget daanaka du duñu wax ci budget bi parce que xam nañu mënuñu ci dara ku nekk yaa nga naan sama euh, fa ma dëkk amul forage wala fa ma dëkk amul fajukaay wala fa ma dëkk amul école wala fa ma dëkk amul yoon wala fa ma dëkk amul courant yooyu la député yi di wax te it population yi loolu la ñuy déglu ci député yi ah wax mhm. na sunu sunu problème mhm. alors que député yi dañu war a discuter budget bi gouvernement bi indi discussion mhm. yu dëgër lañu lañ fa war a mën a def mais même bu ñu ko bëggee par exemple ñu mel ni ñun pour nga mën ko day jafe foog nga liggéey ba sonn ànd am ñu ne ci ginnaaw di la liggéeyal parce que ministre ay conseillers yu bari la ñuy am ay experts boroomi xam-xam député bi amut dara Euh, jamono yi am na ay yenn ci ay assistant parlementaire bariwut doo leen xam sax ñeen ñu bari ci député xamuñu sax assistant parlementaire yi parce que doyut alors loolu ay jafe-jafe la assemblée dafa war dafa am li ñu naan débat d'orientation budgétaire loolu moo war a am laata ñuy indi budget gouvernement bi danaan dafa war ne at mii di ñëw lii ak lii ak lii laa bëgg a def maanaam li ëpp ci xaalis bi nii laa ko bëgg a séddalee. d'accord député yi ne non non non euh, bul fii li nga fi def bëgg def ëpp na. def ko mhm. fii fee ëpp na et yu mel noonu. d'accord léegi euh, euh, honorable loolu moom ñu ci doon sori itam dañuy xam ni problème mu système la rek. dañuy xam ne dañ problème mu système la système bi. voilà système bi moo baaxul waaw système bi moo baaxul. man man sama système rapidement. waaw Pam gañ mooy man nawet laa bëgg nawet. maanaam bu ñu ñëwee gouvernement bi ne lii laa bëgg na mooy euh, euh, débat d'orientation budgétaire ay mois de mai juin. mais est-ce que ci nawet boobu nga bëgg itam. Euh, gënul yow législature bi nga bokk ci ëllëg nga xool keneen ci sa membre parti mu dem siéger à l'Assemblée nationale. au lieu que yow ngay nekk. non non cest loolu itam yaakaar loo ni mën na. non non non amul benn problème mais bu amul problème te du gis aussi nga acté ko. mu ne. du ma amul problème nga wax mais gisuñu nga ak te loolu toujours dañuy gis ni yaa ngi. yaa ngi ah, buuxante pour dem assemblée nationale. xam nga yooyu. waaw ay nga Ngagne defe naa ne man weesu naa foofu. 2012 mhm. euh, laa doonoon député. waaw 2012 dañu génn ci perte pouvoir. Mhm. mënuma defar liste ba pare ne duma ko jiite kooku day mel ni da ngay daw. Mhm. ah c'était pas évident hein. donc ma jiite liste bi. dañ def coalition. mu ay chef politique mais. Euh, c'est ça hein man euh, je crois que prochaine euh, législature législature gëw ma ne dinaa ci bokk. d'accord loolu am na solo mais niveau bi niveau assemblée nationale niveau député yi ban gis-gis nga ci am. parce que ah. maa ngi fàttaliku ci législature bu mujj bële Moustapha Diakhaté wax ñeneen sax du moom rek ñoom Modou Diagne Fada je pense ak ñeneen wax nañ ni législature bu mujj bi ci gën a bon ci législature la bokk. bi nga xamee ñoom natt nañu ko mais yow bi nga li nga dund nii ci législature bi nga xam ne moom lañu dugg nii boo ko doon noté lan nga koy jox ci ci niveau. Ah, niveau bi des na des na trop trop trop trop. Mhm. mais loolu du fotu député yi. ñi leen investir bu ñu déedéet soo ñu falee député ba pare mais nañ ko jox niveau nañ ko metre à niveau surtout tout parce que ñi fa ne. ay boroomi xel lañu ay boroomi bopp lañu du rekk ci ageenu opposition même ñene fële la ñu làqar cee ba ñëw assemblée wane nañu ne wane na ne ñooñu du ñu ay. Euh, du ñu ay ne mais lan nga bëgg wax ci mettre à niveau. lan nga ci mooy formé formé xam nga mhm. man dama nekkoon jëkkoon a nekk député nekk ministre nekk chargé des relation ak assemblée yi xam naa li ñu soxla. député bu ñëw soxla na formation même ñun ñi nga xam ne dañu yàgg ci débat et cetera. soxla nañu formation. Mhm. par exemple budget ni muy doxee il et cetera yooyu ku ne daf ko war a xam député yi dañ ko war a xam. Mhm. Mhm. mais duñu ci leen former. donc bon am na ay effort temps yi ñuy am expliquer budget programme et cetera ak yooyu mais dafa des trop man ni ma bëggee eh, ñu defee ko ni. député ci yoon booy ñëw di nekk assemblée at mu jëkk ba juróomeelu at soo fay génn war nga fa jële ci ay bagage ci wàllu xam-xam loo xam ne yow ci sa bopp daf lay wér ne assemblée bi yokk na la. d'accord niveau débat bi nga gis ni dafa des. Euh, ci opposition bi la gën a sooxee wala ci ci ci mouvance bi la gën a sooxee. non non en général. Euh, opposition bi ñoom ah no opposition bi dañuy waajal dañuy waajal opposition bi dañuy liggéey bay bëgg a dee ci ci ci ci budget yi. dañuy dem di gëstu am ay <coughs> euh, seeni i cadre ñu leen di jàppale ci ginnaaw et cetera mhm. problème yi ci majorité bi la ëpp parce que bon conception yu yàgg yi di assemblée di doxee dafa des ba tey maanaam su pap ngañ waxee ñu ngemb kenn ku koy ku koy tontu kooku nag suñ mbokk jigéen ñi war nañ ci waxtaan ci seen biir parce que bañ ko nangu bañ ko nangu bañ ko nangu xam nga yow boo ñëwee par exemple di wax ci euh, euh, le taux de croissance mhm. di wax ci wàllu agriculture ci taux de croissance bi di wax ci Euh, maanaam euh, investissement étranger yi li li li li raw ci taux de croissance bi xam nga kooku. waxtaan mais léeg-léeg aussi dañ ciy rax leneen. dañ ciy rax ay ay ay déglu ma rek opposition parfois dañ ciy dañ ciy rax yeneen attaques itam. alors bu ko euh, defee. xam nga loolu wax wax yu waxtaan yu ama am solo la. Mhm. boo waxee loolu ba pare ñu daal di kenn daal di ñëw au lieu mu wax ci loolu mais mënu cee wax. bu ko defee da lay attaqué personnellement maanaam wàññi la jéem laa xas jéem laa euh, loolu am na fa. Mhm. gisoo ne am na ci suñu benn collègue ci législature bee passé moom dafa démissionné dafa ñëw xool affaire yi mu mosut nekk amul expérience bi balaa gaa ñi di ko attaqué di ko di ko kall kallee mu bàyyi mu ne man xaw ma lii. Mhm. donc euh, yooyu am na fa. d'accord mais dañuy des ba tey assemblée nationale parce que ci débat yi am na ci débat bu xaw a bu xaw a bu xaw a am solo parce que c'est vrai que lépp am na solo sax mais bala ma ciy ñëw def ci am par exemple concernant le ministre de l'économie euh, plutôt le ministre de des finances et du budget. Euh, budget ñu voté ko sans débat loolu itam indi woon na coow foofu euh, lu tax ngeen yombalal leen ko yéen. alors <laughs> yombalal foofa kay ñun du yombalal majorité bi dara waaye majorité ñoom dañuy yëkkati loxo rek ñu wàññi noonu la assemblée dañuy yëkkati loxo rek ne nañ ko wote sans débat nga nga jóg daal di ne non quand même budget ministère du sax budget ministère des finances loolu la ñu non non loi de finance bi ci boppam la ñu voté sans débat alors Euh, opposition bi danaa non loolu warta mën a am même ci biir majorité bi am na ñu ci d'accord ne non loolu quand même. dégg naa ñu ci d'accord rafetut jaaduwut jekkut mais ñu ne ay ca nañ wote. yan inconvénient nga ci gis lan lan nga ci gis loo xam ni jaaduwul pour yow. non dañu war a waxtaan sénégalais yi suivre. xam xam. nee naa la moom wax ji moom amul benn njariñ ci budget bi. parce que du soppi ko. Mhm. waaye nag ñiy déglu. dégg voilà déglu. dégg xam problème yi naka la naka la jafe-jafe yi naka la demee. parce que ñoom dañuy ñëw ne affaire baa ngi dem dox na baax na ñun ñu ne doxut demut baaxut. Mhm. mais nit ñi déglu est-ce que ñu ne mi ngi dem ñoo wax dëgg walla ñu ne demut. <laughs> xam nga benn bis euh, ndeysaan maa ngi koy nuyu euh, ministre bi Birima Mangara moo doon mm-hmm. bi ministre budget mm-hmm. mu ne Mamadou Diop moom budget bu ñëw rek mu mu dàq ko mm-hmm. dama ko expliquer ne ko seen budget yi le ba tey loolu laay wax sax seen budget yi le bu ngeen ko fuloon fukki yoon itam te soppiwuñu état système bi nga doon wax soppiwuñu ko duñu dem fenn pétrole gaz bii di bu ñëwee te soppiwunu jàdduñu yoon wi nu tegu nu jàdd ko tegu ci weneen yoon itam du sotti am na réew yoo xam ne am nañ ko te te te sottiwut man ngaa yokk nag ñi ñi ñi ñi maanaam maanaam yokk alalu ñi am alal ba noppi mm-hmm. waaye du tee euh, mm-hmm. euh, peuple bi mën na cee bañ a bañ a bañ a gis boppam donc mm-hmm. administration colonial ba mu fi nekkee loolu lay wax xam nga tubaab dañ dem ba ne nit ku ñuul dafa tayal bind nañ ko te nit ku ñuul tayalut waaye liggéey ba leen tubaab yi doon liggéeyloo te bëgguñu ko moo tax bu ñu mënee bañ a liggéey du ñu liggéey fu ñu mën a kii ci ker ga ñu def ko fu ñu mën a tendeefal ñu tendeefal tubaab yi ne ah nit ku ñuul dafa dafa tayal fekk lañ koy def loolu bu voilà mais mm-hmm. su fekkonte ne mm-hmm. fexe nañu ba nit ñi jàpp ne ecole bi seen école la justice bi seen justice la et cetera administration bi seen administration la gisoo ne même booy dem ci administration di wuti aw kayit da ngay gàn gànnaayoo dara pour boo ñëwee nuyoo ko nit ki pour tànk fa ne yow la fa yow la fa nekkal ci yoon mais foog nga def dara pour mu sa yëf man a gaaw donc nit ki jàpp na ne administration bi. du administration mais lu mel noonu di corruption aussi dégg nga ni euh, Seynabou Ndiaye Diakhaté of nag moom décrier na ko. ñaawlu na ko parce que gis na ni entreprise yu bëri yi nga xam ni bëgguñu corruption sax du ñu ay marché. oui mu def naa ko ci sama page Facebook dafa garaw xam nga euh, nee naa sax jamono yi daanaka euh, wax ci corruption ak xeex corruption euh, dafa xaw a wàññeeku te te li ñuy wax gaa ci corruption la ba waaye ay ponk la rek pétrole bi gaz bi walla nga ne zircon walla nga ne mais corruption général ci société bi nga xam ne culture la léegi mhm. dafa bokk ci sunu man naa ne aada daal. d'accord mais mais honorable yow li ngay wax ci système bi euh, ci ñi ko gën a incarné nga bokk parce que ku wax Mamadou Diop Decroix wax. ca ca ca ca ca jamono yi 68 daanaka ba jamono ji macha allah euh, kenn gënu laa xam système bi ku ko incarné nga ku ci dund nga ku ci jaar nga ku ko xam nga euh, ku ci ku ci nekk lu bëri nga macha allah mais lan nga xalaat ni loolu moo mën a indi bi. parce que nag war nga mën a indi solution bi parce que. kenn gënu la xam système bi ah, man am naa su la xam solution. d' abord mhm. d' abord bi man def naa hmm, presque cinquante ans. Mhm. ci euh, opposition radicale. Mhm. kon dama teel a xam système bi teel ko contre teel ko xeex. ok après dugg ci biir système bi. xam ni muy fonctionner exactement donc man xam naa nu ñu koy fexeele ba ba ëpp ko doole ah système bi xam naa ko de. Mhm. d'accord euh, wax nga léegi. def naa benn benn këy benn téere bu ma tuddee vision. pour un nouveau programme alternatif gëm sa bopp. Mhm. waaye boo seetee ci tubaab nouveau programme alternatif li tubaab di acronyme maanaam dakkantal bi noppal lay doon. d'accord soo nopp soo gëmul sa bopp. doo noppalu. honorable est-ce que yaakaaruloo ni bi nga duggee système bi du faute nga def aussi njuumte parce que loo réclamer wu de gauche ba ñëpp xam la si gis sa taxawaay euh, gis ni nga xam ne noonu nga xeexee noonu nga defee est-ce que yaakaaruloo ni dugg euh, bi nga dugg ci système bi li nga loolu yaakaaruloo ni. ak a baax. njuumte nekkul njuumte vraiment ci ci sa ci sa ci ci ci sa. Euh, ci sa philosophie de de politique de gauche man yaakaar ni loolu. xam sa laaj la laaj bu am solo la sama jaar-jaar ñetti pàcc la laata euh, Ablaye Wade di jël pouvoir ma nekk opposition mën naa wax 68 nekk révolté jeune élève étudiant révolté ba 73 ma dok bokk ci parti politique di xeex ba l'an 2000 xeex bi yooyu fu ne xeex naa fa mhm, après ma dugg ci mhm. gouvernement mhm. c'est important est-ce que nit ki bi mu duggee ci gouvernement la mu doon wax laata muy dugg ci gouvernement mi ngi sàmmoonte ak loolu wala déet est-ce que tënku na ci wala déet pourtant gouvernement Abdoulaye fukki at ak ñaar coow li bari na lool ci yorin est-ce que mas ngaa dégg sama tur benn yoon ci ay lënt lënt wala lu leer. non loolu du wax bi nag. sama tur non non non non non non mënoo ci indi exception sa bopp vraiment ay gouvernement nga solidarité la. donc non ma cee dégg te te ñu ci gouvernement boo xam ne yaa ngi ci biir di ci siège. damaa bëgg rek nga déglu ma. dinaa la déglu mais aussi loolu. Mm, bëgguma nga ni ma keccet ma ci rek. aussi bokk ma ci parce que xam nga bu ñuy wax lu am solo. waaw. parce que yaa ngi <clears throat> critiquer nit ki ci boobu jaar jaar. waaw ma bëgg la wan ne la. Mhm. justement nit ñi fi ñuy natte politiciens yi ci réew mi mooy kuy wax itam su su su su yeggee fa ñuy fa ñuy jële dina jël def ci poosam. waaw ñëpp loolu la gëm. Mhm. mais may wane ne am na ñu jaar ci gouvernement te jëluñu def ci seen poche du man rek mais ca laa bokk. Mhm. c'est très important. ba loolee passé Abdoulaye Deme Macky sàll mi. ci suñu parti la ne woon xamante na ak moom bu baax a baax a baax. mënoon mhm. naa dem ci gouvernement bi defuma ko dama toog ci opposition. Mhm. donc loolu. dafay wane rek ne daal. politique xëy na bari nañu. d'accord kii waaye wute na itam. léegi honorable ba tey damay des ak yow. parce que man dama jàpp nii war nga mën a. parce que li nga bëgg li nga li nga wax sànq ne. waaw ah, ah dugg nga ci. kon ah. nag laal nga ci système non mais mais bu ko defee yemul foofu sax c'est-à-dire man dama jàpp ni. Euh, bu bu bu fekkonte ni nekk nga fa nga nekk man yaakaar naa jural na la leneen sax parce que lu li tas âge yi man ragal naa ni système bi génnu ci li la taqale ak sa mag jooju di Landing Savané ragal naa ni système bii. mais bien sûr génnu ci. mais bien sûr mais loolu soo ko soo fa jaarutoon ba ñu xam kanay kan. ñu bàyyi rek ba bés rek nga ne noo man du ma laal duma ma jege du ma taq ñu ne ah, kon nañ ko jox <laughs> loolu wóorul. waaw ah, d'accord mais man nag aussi. loolu wóorul da ngay seet da ngay seet. waaw am na ñu doon wax ginnaaw bi ñu dugg ba ñu duggee nu ñu duggee nu ñu doxale ba génn foofu ngay mën a natt. waaw mais man la ma la ma loon gënal nag mooy bu fekkente ni danga nga réclamé wu de gauche ñu xam lan mooy seen xalaat seen gis-gis seen lépp man la ma gën loon. la ma jàppoon parce que tey jii lan moo def ci gauche ci Sénégal lan nga ma ci mën a wax. alors donc euh, foofu dama laa bëgg a wax ne la d'abord parti socialiste lañ doon moo moo ne gauche. Mhm. déglu nga président Abdou Diouf li mu la wax nee na ñaar fukki at yi ma ne ci réew mi ajustement structurel rek laa nekkee. Mhm. FMI banque mondiale. doxalul benn politique de gauche. parce que mënu ko woon. Mhm. booba gars yi sàggane nañu yëf yi. ba ñële ñëw yor réew mi di ko dox mm-hmm. ñoo la naan defal nii bul def nii defal nii ba BNDES bi fi newoon doon jàppale eh, privé national secteur bi et cetera ak yooyu dañ koo tas ak yeneen i banque dàq liggéeykat yi ONCAD laa newoon man 6000 travailleurs ñu dàq leen mm-hmm. et cetera et cetera yooyu la Abdou Diouf nekkoon Abdoulaye bi ne libéral ba mu ñëwee def na fi ay politique yoo xam ne ci tradition gauche koy def. jox bourse étudiants yëpp. bourse wala aide euh, paysans yi jàppale leen et cetera cetera parce que programme Abdoulaye Wade fondamental 1974 socialisme travailliste la ñu bare xamuñu ko. ma fàttali leen ko. donc euh, pour jeexal ci côté boobu. damay faral di wax ci tubaab épithète ak étiquette nañu ko moytu. maanaam euh, gauche droite machin et cetera yu ñuy jëlee France. yu ñuy jëlee France ko moytu nag loolu mënuñu ko moytu nag parce que loolu aussi bu ñu ko demee ba ba boole ko suñu ay réalité mais am na taxawaay bu ngeen ci taxaw. alors taxawaay bi voilà donc loolu aussi duñu duñu duñu ñëw ba tey rek ngeen ni nañ ko bàyyi buñ ko waxati. non non ah, waxuma loolu. lan nga bëgg a wax ko waxuma loolu dama ne nañu ciy def ndànk du caageenu pap ngañ fëgg na dënn daal di man gauche laa ñu ne ah, kon Pam Ngañ nee na gauche la parce que nee na gauche la non Pam Ngañ bu dee gauche dafa war a wax ci mbay lan mooy politique de droit ak politique de gauche ci école lan mooy politique de droite ak politique de gauche ci industrie lan mooy politique de droit ak politique de gauche ci commerce lan mooy politique de gauche ak politique de droite foofu la ñuy xàmmee man ci nit ki ni mu gisee affaire bi ci lay attee waaye du ci li muy wax waxal boppam hmm. d' accord léegi honorable loolu xam naa dama koy dama koy tëj mais bala mu koy tëj rek <laughs> vraiment dama bëggoon tey jii bu ma gisee par exemple LD ni mu demee genn wàll gi PIT fële euh, est ce que tey am na lu lu ñu mën a jàpp ci ñi nga xam ne ñoo doon réclamé wu de gauche tey fi mu nekk. mais ñu mais ba tey ñoo ñu ngi fi di de li ñu li ñu li ñu doon xeex ñu ngi koy xeex ba tey am na nag am na ñu rëcc parce que de mais nit ki doomu aadama aussi nit ki nit la. am na lu mu àttan am na foo xam ne bu fa tolloo sonn. day war a day war a dund. bu bu bu sonnee rek sonn waaw façon bu ne la kon nag mënoo nit ki li ma attan man ku ne war na koo attan ku ko àttanul rek ma ma ma ma la lu mel ni. non non du noonu. àddina euh, day dox. Mhm. dañ dañ koy nangu. Mhm. Euh, mais justement idéo yi gauche bi doon doxal. maanaam euh, gis-gis bi. ak euh, yéene ji ñu am ci suqali. lépp raaf na askanu askanu Sénégal loolee ba tey mi ngi fi toxuwut am na ñu ko gàdd woon ca nekk ndaw ci mag ñi lay wax ba tey ñi ngi ko gàdd am na ci gone yi ñoo xam ne ñoom itam gàdd nañ ko ñëw ànd ak mag ñi noonu la àddina di doxee. Mm-hmm. mais bareetul de. bari ñi ko symboliser fi nekk nii ak xam nga nag fii. ci idéologie de gauche. Pape ma wax la tuuti. Mm-hmm. d'abord man gauche sax bëggatuma ñu di ko ko tuddee dama ne gars yi nañ koy tuddee euh, dooley jëmale kanam parce que gauche boo demee ci alxuraan dafa am lu gauche lu mu tekki ah, ak droite lu mu ah, tekki d'accord ok ah, alors donc dañ ko war di adapté boo demee France lu tax mu tuddee woon ko gauche mhm. mooy ñan ne woon féete ca président bi bu toogee ña féete woon ca càmmoñam mhm. nañu doon gise ak ña féete woon ca ndijooram nañ doon gise lool lool moo ko kindi alors ñun ko indee ci réew moo xam ne diine l'islam alquran am nu mu gisee gauche ak droite da nga koy adapté waa d'accord mais nga fat ñu fàttali ko aussi ci ci laïcité la ñu nekk am na ñoo xam ne li nga gëm gëmuñu ko non non mais man référé wu duñ ci référé wu ma ne loolu gis nga déglul ma wax la xam nga man bu may wax mhm. damay wax ci li ci boppi nit ñi. waaw waxuma ci li ci téere yeeg li li nit ñi di. mais da nga tudd téere moo tax. voilà bo boppi nit ñi. mais da nga tudd téere. waaw boppi nit ñi. li ci ne mooy. Mhm. Euh, fii. jullit moo fi ëpp. d'accord donc euh, voilà. ok loolu loolu loolu am na solo euh, fallait que ñu taxaw ci li indi sax ñu waxtaan ci parce que dafa ponk bu am solo la parce que euh, bu ñu amee Mamadou Diop Decroix mu symboliser vraiment lu mel noonu ci idéologie de gauche am na solo ñu aborder ko. Mhm. parce que itam am na lu ñu ci jaaxal daanaka li ñu ci jaaxal yëpp sax xajul ci émission bi. mais xëy na jombul beneen yoon bu ñu amee occasion dinañ ko gën a mën a faram-fàcce. Ah parce que am nañ ci loo xam ni vraiment man boog am naa si am naa ci lu ma lu ma lu ma jaaxal. ñu foofu assemblée nationale. dañu fa gis euh, euh, taxawaay boo xam ni kenn ci député yi taxaw na ko fa muy Moustapha Cissé Lo. mais dama bëggoon bala ngay dugg ci assemblée loolu nga wax ma dellu si xam nga politique. Mhm. fu mu dafa particulier ça maanaam mënoo ne eh, fokk nga dugal sa loxo euh, lu ñëw rek nga ne nii. <laughs> non non du loolu da ngay da da ngay dugg ci ci ci ci sumbuxloo bi dëkk dama doon wax benn góor ca Jolof mu ne ma daal loolu moom dama cee ànd ak yow lool ma ne ko làmb la joo xam ne bu dee ne ku set rek da nga naan nii daal di ne man day bokkuma ci ñuy tilimal rek a fay bëre ak ku ku ub làmb jayit tilim rek a fay des hmm. fokk mu am mbër yu ngemb pour indi lu set ci làmb ji dugg ci biir suñ ko ubbee làmb ja set mhm. kon nag politique loolu mooy mbiram du caagee nungi na ma toog rek eh la man daal ki extra bu ñu wax ah man kenn mënumaa tudd non mhm. da ngay dugg ci biir di def erreur di am ay succès di daanu di jóg ba mu sotti mhm. d'accord loolu aussi am nañ ci yeneen xalaat mais dama xam ne bu ñu toppee loolu ci ak question yi mën nañu des ba tey ci wàll boobu ma ma ñaan rek ñu ñu génn ci dem ci leneen euh, mu ñu ni ma ko junjee léegi ci assemblée nationale wax naa la ko débat bi nga xam ne tey daanaka moo moo moo moo gën a moo jël lépp sax ci maraton budgétaire bi mooy coow euh, wàllu njiwum gerte gi ci séddale bi ak coow li euh, assemblée nationale la la fekk bi ko Moustapha Cissé Lo yëkkatee Euh, ban gis-gis nga am ci kàddu yi ak lan nga xalaat ni moo waral mu wax lu ni mel ak lan moo ci war ci kàddu yi nga xam ni wax na ko pour yow. Euh, waaw dafa am maanaam ay pàcc. ci mhm. mbir mi. Euh, da ci am lool duma ci wax ay diw dugg na fii diw génn na fee diw kii yooyu du sama wax mhm. mm, ay dàggasanteek ay téesante du sama wax mhm. wante Moustapha Cissé dafa wax lu am solo nee na dañoo séddoo jiwu wi ñi ko war a am joxuñu leen ko waaw euh, ñaar ba ñetti mbir laa ci bëgg a leeral bu njëkk bi mooy euh, affaire agriculture parce que gerte ci mbay la mm-hmm. mbay ci boppam sànq nee naa la ba fi tubaab bi jógee fentaatunu sunu administration ba nit ñi jàpp nañu ne du seen yëf agriculture bi fentaatunu ko tubaab bi moo fi indi gerte ne Sénégal nañ ma bayal gerte Mali ak Burkina booba ñu tuddee tudde ko woon Soudan ak Haute-Volta nañu ma bayal wëttéen Côte d'Ivoire nañ ma bayal café cacao Guinée nañu ma bayal banaana waaye ba tubaab bi demee dana waroon a fentaat suñu suñu mbay waaye dañ ko caa bàyyi di lang-langee gerte juróom benn fukki at daanaka sottiwut te du sotti tànk que système bii mi ngi fi parce que man def naa ONCAD comme ni ma la ko waxee ONCAD bu ñu amoon jot sànq yaa ngi naan du fi xaj bu ñu amoon jot ba ma wax la ci ONCAD mm-hmm. da ngay yéemu cent 1975 ONCAD def na cent 150 milliards de chiffre d'affaires non dévalué CFA bu doon bu doon bu doon léegi xanaa 1000 milliards. Hmm. Euh, lay doon kon dafa amoon dafa amoon doole société boobu. Hmm. mais booba parti bi fi newoon yor nguur gi ci lañ doon dund. boobu itam yii mu ñu wax nii yu sew yi amoon na ci kanam amul woon man dama lay woo maa maa yor yëf yi dama lay woo ne la Pape Ngagne waaye yow sax gëj naa la gis jaaral seet ma nga ñëw ma may la bon bon mille tonnes de riz booba muyee lañ ko doon tuddee parce que imp doon importer lépp alors bu ñu ne gaal gi buy ñëw ceeb bi day am lu tooy xam nga loolu daanaka wala ñu jaayee ko dix francs booba jamono nga ñëw mën naa laa may 1000 ton <laughs> bu ko defee nga dem fële duñ la jox 1000 ton ceeb bu tooy. ceeb bu baax lañ lay jox bu ko defee nga jaay ko nga ci xaalis. kon dara soppeekuwul. mu nga alors kon dara soppeekuwul par rapport a li ñu dégg Moustapha Cissé Lo wax fi mu ne euh, euh, euh, subvention yi 60 milliards daaw 62 milliards ren 59 milliards xoolal loolu li mu toll. ok alors gars yi gisuñu ko baykat yi gisuñu ko. maanaam. mais mais kon scandale la loolu. non c'est un gros scandale. ay bon woo benn peintre en bâtiment exemple laa joxe parce xam naa xam naa bu baax ni mu demee mais soxlawut parce que ñooñu itam euh, àddina moo ni doxe rek moo ni doxe ñu jox leen ñu jël. <laughs> bu après bu ñu jëlut it keneen jël. waaw bu ko defee koo xam na mhm. yow peinture ngay def. Mhm. ñu jox la gerte. doo seen gerte gi sax kayit gi ngay jël jël rek dem jaay. Mhm. mu jeex takk waaw mais man honorable li ma jaaxal mooy. Mhm. Euh, xam nga ni scandale la yéen ngeen nekk ci opposition bi te dégguñu vraiment ngeen am ci benn taxawaay pour ñu xam lan lañ ci war a def li ñu gis moom mooy ñoom ci seen biir. ñoo ciy waxante kii wax kële wax. est-ce que noonu la war a demee est-ce que yéen waru leen ko mën a jël nag. Euh, alors gis nga rek loolu aussi Pam Ngagne vraiment dafa yomb trop. ok mais opposition bi guddi ak bëccëg lu ne mi ngi ciy wax lu ne lu xew ci réew mi te doxut opposition baa ngi ciy wax. mais ban opposition mais ban opposition may ma tuuti mais mais on aura ban ah, ban opposition parce que loolu aussi il faut nga ah, wax ma ah, ban opposition dinaa la tontu waaw alors bu ci Mamadou Diop waxee déggin wi mooy opposant opposant mooy wax mhm. waaye bu ci Moustapha Cissé Lo waxee ñu ne ah Moustapha parce que ci biir la ne ok donc nun bu nu waxee dañuy benn nopp lañ koy dégg waaye bu kee waxee parce que ma ngi ca biir loolay différence bi moo tax c'est c'est bien que mu. Bah, que mais, mais mais est-ce que loolu. alors euh, léegi dama bëgg a wax dëgg quand parce que mbay ni nu koy doxalee du régler suñu problème. Mhm. téeméeri sénégalais yoo jël daanaka juróom-benn fukk ba ci mbay la ñuy dund. Mhm. te mënunoo fexe ba réew mi xiif jóge fi. Mhm. am na réew yooyu téeméeri nit yoo jël ñett ñetti nit a cay bay. mbaa ñeenti nit mbaa juróomi nit. te ñooñu dañuy dundal réew ma bay bay bay bay exporté maanaam di di di jaay bitim réew. kon nag loolu ci réew moo xam ne li fi ne ci ndox du jeex. xam la ñuy wax euh, defe naa Maastricht bi lañuy wax wax. 500 kilomètres cubes mooy ndox moo xam ne bu doon piscine la man fii ba Tamba lay doon ci guddaay 1000 mètres. ci xóotaay 1000 mètres ci yaatuwaay largeur xam nga loolu ak mhm. taw bi mhm. ak dex yi mhm. te du ñu liggéey lu dul ñetti at ñetti weer ci at mi loolu jaadu na luy lawti lawtee loolu juróom benn fukki at jaadu na mais bis bu ne nu wax ko loolu suñ ko réglé woon kon lii Moustapha Cissé Lo di wax du ci am Hmm. après ñu ne waaye opposition bi kiiwul. waaw non no non parce que parce que xam nga xam nga lu tax. dafa yomb trop non non dafa dafa am ñu ñu taxé de opposition dealer. dafa am ñu ñu taxé de opposition dealer. Ah, dégg naa kenn koo xam ni Barthélemy Diaz la mu mu mu jox xar bi wax ni y opposition dealer ñi nga xam ne dañuy dealer. ak le président sal donc loolu moo tax ma ne la ban opposition. bon man nag damaa nekkul ci côté. mais attends xam nga rek xam nga xam nga man xaw ma ci ban côté nga nekk dama lay. damay opposition bi dafa bare. Pam Ngañ waaw euh, léeg nga gis ko xumbal xumbal ba mu xumb mu xuus jàll. Euh, yooyu am na fii mooy li may wax doomu aadama dañu bare te wuute ni loxo baaraam yi loxo wuute noonu la doomu aadama may wuute. léegi honorable ma laaj la bu dul ci amul euh, amul benn yoon boo rencontré Macky Sall ci privé bu dul lu public lu privé. amul solo loolu ma di la ko walla bañ la ko amul benn njariñ ban njariñ la am. Mhm. amul njariñ du Abdoulaye daje na ak makisal Sall. Mhm. Masaalikul Jinaan. non franchement. waaw waaw non non si man pour man am na njëriñ quand même. parce que dafa am ñoo xam nii mën nañ jàpp ni peut-être. non non amul njëriñ parce que euh, nekk ci di ci wax parce que ah, am na ku ma ko laaj. sa benn nattango ma ne ko mais li nit ki di demee marché yow moom mu jigéen la may mun a nduur fay. ma ne ko booy dem marché. gàddu sa bool est-ce que dina nit dina la dog ne la wàcceel sa bool bi ma ma xam li ma seet li ci ne non li ëpp solo mooy nit ki nee na mi ngi ci opposition mais aussi est que taxawaayam bi mu taxaw ci opposition est-ce que net na wala netul c'est tout ah, mais net na wala netul nag tontu bu net da ciy am solo cest à du rek ci gis ci ay actes. c'est-à-dire non tontu bu net mais tontu non non sa intéressé wut Sénégalais yi. non pour yow intéressé wul Sénégalais non non li leen intéressé mooy li ma taxaw li ma taxawee di ko jëf li may jëf moo ëpp solo. waaw mais ci taxawaay boobu. bon bu weesoo mën na noo jàll daal. mais dañuy jàll non mais dafa li ñuy wax nii aussi dañuy jàll mais c'est important euh, xam nga ci sa combattant ci ci ci sa xeex. man bi ma la mujjee gis ci terrain bi nga bokk ci manifestation yi mooy bi ñu la fi yanoo noonu ak alkaat yi boobu laa la ci mujjee gis. ndax boobu nga ci pare wala lan moo tax aussi kenn gisatu la nga dem au front lan moo xew. kenn bëgg naa xam ma dem au franc. way ci marché yi ñu gis ko. mais maa nga fa woon vendredi bi passé. non xam naa ni ci affaire électricité bi maa nga fa wax non li ma bëgg a wax da nga koy jël. ñu gis la nga nekk euh, ci devant bi mu nekk. comme saa yu may dem man kay toujours devant lay ne. du ma ne ci ginnaaw mukk toujours lay ne. looloo am solo quoi. mais nag tekkiwul ne. parce que maa ngi opposé di xeex peut-être sax ñu tëj maak yooyu que du ma wax ak Macky Sall su ma waree wax ak moom. tekkiwu ko. même ci c'est très important même ci pet. ab ah, ah, pet ak beneen pet ak moo ci yem. moo ci yem lan mooy problème mu set lan mooy problème la ñuy lijjanti fii du Sénégal la ñuy lijjanti su laajul ma toog ak Macky Sall du ma tooy ak toog ak Macky Sall su ko laajee ma toog ak moom surtout tout franchement parce que man dama weesu affaire yooyu. affaire u deal. oh non. non damay laaj rek da nga weesu affaire u loolu loolu laa la wax rek Pape Ngagne vraiment nañ jàll ci. loolu loolu dinaa ko dinaa ko dinaa ko nangul euh, ñu jàll ci leneen waaye assemblée nationale tudd naa Moustapha Cissé Lo euh, dafa wax ni affaire drogue bi am na loo ci xam drogue bi mu wax mu ne nañ ko laaj moom du Diop Decroix <laughs> bon. Euh, Moussa Cissé Lo. drogue bi yow lan nga ci lan ci laale. alors donc bon. drogue bi nga xam ni mi ngi lëmbee réew mi et puis man dama def euh, nu mu tuddati dama bind président Assane parce que Moussa Cissé Lo quand bon man lañ ko mu wax lu ne waaye nag mooy premier vice président assemblée nationale du Sénégal. Mhm. mooy président assemblée bu CEDEAO. fukki réew ak juróom yi séq Afrique gu sowu jant seen euh, député ya moom mooy président. waaw kon c'est du du du n'importe qui daal. su ne xam naa ñiy tabax ay étage ci drogue. Mhm. su ma procureur wooyee ma ma ma wax ko. Mhm. loolu laa gis mu wax ko. Mhm. ma daldi bind gouvernement question orale ne leen na ngeen ñëw. expliquer affaire drogue bi deux cent cinquante milliards la douanier yi di laaj euh, bateau drogue boobu. mais moom après dafa wax ni yow am na lu ci nañ la ko laaj. déglu ma déglu ma Pape Ngagne vraiment il faut quand même. baal ma allez pour nga xam. effectivement allez-y lan lu tax Moustapha Cissé la tudd sama tur. ok xam nga tuddul beneen député. Mhm. man la tudd parce que man maa bind question orale gouvernement bi ne leen loolu waa Moustapha Cissé la wax ñëw leen ngeen leeral ko. ba pare bind Moustapha Niass demandé commission d'enquête parlementaire ci affaire drogue bi bon euh, ginnaaw bi defe naa moom nee na ni mu ko ni ko gars yi waxee bokkut ak ni mu ko waxee woon ak yooyu bon jeex na. waaw mais bu la waxee ni affaire drogue bi nañ ci wax da naan jeex na rek. amul dara loo si nee na nee na ni ñu ko waxee moom waxewu ko noonu looloo ci bëggati. <laughs> waaw mais loolu fan la ko waxee est-ce que fa mu ko waxee woon la ko wax non waxee waatu ko foofu mais waxee waat na ko wax na ko feneen kon nag jaru ko. vraiment jaru ko. dama damay kii mais jaru ko. d'accord Moustapha Cissé Lo daal bon. Mhm. wax na ko après nee na non. Euh, ni ko gars yi déggee bokkul et cetera. mais dérangé wu la ñu taxaw ci rajo yi wax ni Mamadou Diop Decroix lu ñu. am na mu ci mais dérangé na ma mais dérangé na ma mais ah, dérangé na ma mais politique. mënoo ne ñi ma neex dong laay ñooy ne ci politique politique moom mook mook mook lépp feneen a yem lu ne nga fay gis danga koy nangu mhm. <laughs> d'accord audit bi mu wax ci assemblée nationale ba tudd ci Moustapha Niass yaakaar nga ni am na lu ko fa jar lu ñu war a auditer assemblée nationale yow mi fa nekk. mais audit audit mooy lan audit mooy seet ndax affaire baa ngi dox fan moo am rëq-rëq fu ko amul ex mais loolu la war a demee mais Sénégal kenn du seet kenn. alors fi mu ne fu ma pam ngañ su ma nee kaay ma seet ni muy liggéeyee mu ne waa ji damaa bañ waaw damaa bañ jàpp jàpp ne alors ba kañ. ba kañ. loolu bokk na ci lu nu tardeel moo taxit nan toog rek. d'accord alors bi nga wax muy lu jëm ci wàllu Sénélec. yokkute bi nga xam ni am na ci euh, di nga leen dégg sax ñoom ñi nga xam ne ñoo fare fële di wax ni yokkute amul am na nuñ koy argumenté lan nga gis. ci li nga xam ne moom moo ci am yow. non dafa sérieux sérieux ñu dañuy def lu leen neex mënoo yow toog ne ca weer yee ñu paase courant bi dina wàññeeku bon ñu ñëw ba léegi euh, ñu ne état bi jox na Senelec cent milliards ak lu topp mm-hmm. ñu ne ti. Euh, Senelec am na bénéfice xaw ma vingt milliards xaw ma waa léegi nga bëgg ci yokkati nag yokk électricité kooku euh, njëg gi kooku fu nit ñi jëm ak naka nga koy mën a justifier naka nga koy mën a layale euh, dëggale naka nga koy mën a layale euh, kenn mu kenn mënu koo layal maanaam dañu nekk ci ajustement rek dañuy ajuster Euh, waxoon nañ leen ko nag. ajustement ah, moom mooy mooy mooy kon xaalis daf fi amul ñu koy taqale. ah waaw moom kay taqale ci la ñu ne taqale ci la ñu ne de euh, noonu nañ leen nag laata élection bi gars yi dinañu <laughs> euh, voilà xaw a kii ubbi affaire yeeg yooyu. mais yaakaar nga kuy taqale dina teg projet yi nga gis fii yëpp quand même projet yi nga gis ci TER gis ko ci BRT. Ah, yaakaar nga lépp bor yi dul jeex du xaaj ak mauvais investissement parce que bor. aayut ah, waaye bu dee danga leb weer wu dee fi mu ne nga war a fay ñaari milliards ak lu topp mhm. naata naa lu ma wax ñaari milliards ak lu topp nga wax weer bu dee non non bu ne bés bu ne mhm. alors bu ko defee du sotti daal mhm. d'accord léegi combat bi gis nañu yi nga xam ne noonu la ko activiste yi gàddoo ba Guy Marius Sagna dem ci kaso ñoom Babacar Diop naka noonu vendredi itam woote waat nañu marche bi yaa nga ci marche boobu ak ndax jàpp nga ni combat bi dafa war a continuer pour que solution am ci yokkute courant bi lan nga ci xalaat yow. mais bien sûr c'est-à-dire que man je crois président bi ci boppam moo war a seetaat affaire yi. cest à mënta ne affaire bi ni muy doxee. seetaat mooy génn ci. génn ci yokk bi mooy seetaat ko. non génn ci yokk bi mais du du électricité rek cest à réew mi lañu ñu war a recentrer dañu doxalin yi lañu ñu war a seetaat doxalin yépp xam nga bu ñu nee fukki nit dem nañu ci giri yu pale gars yi ne àddina tukki na war nañoo rus rus wax loolu war nañoo am gàcce ci ne fukki nit yu dem pale tukkal na Sénégal. ba instruction di ci ubbeeku. ba ba ngay tëj nit ñi kaso. mais mais mais loolu. Mhm. man loolu mënut dugg ci sama bopp xaw ma nu mu duggee ci bopp Macky Sall xaw ma ko ba léegi. Mhm. mais ban pays moo gën a menacé moo ëpp ay menaces ci àddina bi du Amérique. ci ay rapport la ñu nekk nag. ci am ban rapport de force ay force nag il faut boo jekkoo dara nga mais gaa yaa nga di ña nga ca buntu Maison Blanche kër Trump. di fa manifester ba bëccëg. Hmm. waa kër Macky Sall manifester nañu fii ci bu ca giri yu pale ba ñëpp di ko gis nga ne daal ñooñu mën nañ faa dem parce que sama waa kër lañu waaye ñi ci des bu ñu ñëwee ma tëj leen kaso jaadu na hmm. alors et puis voilà am ñu koy bind am ñuy bind ne way oh, affaire bi garaaw na oh pop pop ngi tukki. Ah, lu tax ñu mën a def loolu ah, terrorisme fii kërëb ah. kërëb li ko li ko ko may est-ce que du am opposition bu nooy neex moo ko ko may opposition boo xam ne opposition bi bu nooy neex euh, ci juróom-ñaari at yi nu génn Macky Sall jàpp na fi lu ëpp enfin pouvoir bi parce que parfois xëy na ñuy jàpp du ko yëg mais de toute façon il est à la base parce que c'est lui la tête lu ëpp téeméeri euh, opposant teg na fi kaso lu ëpp ñeent fukki nit man mii di wax ak yow tëdd naa hôpital une semaine nga ne dañoo dañoo nooy quand même ça ne mais en même temps <laughs> en même temps euh, li gaañi di wax yow da ngay jottali. Mhm. xam naa da ngay jottali <laughs> ñoo ñuy wax loolu affaire bi du noonu du football de nga toog ci tribune yi tegale say tànk naan waa ji na paasoo paasam bi baaxul non Sénégal lañuy ñuy wax. ñëpp war a wàcc. ñëpp la concerné kenn ku ne la nga man war nga koo def waaye am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne bokkuñu ci. mais du ñëppay falu bu tëju bu falu di am du ñëppay falu alors donc pour yow falu mooy. neexle nguuru déedéet déedéet waaw parce que non parce que ñi ñi acteurs politiques yi ciy xeex yëpp looloo tax ñu ñu ciy rey seen bopp. ah bon pour jëlee fi waa ji la pour mën a toog place am. ah daal di nguuru. waaw loolu ah, loolu la. kon nañu tëj nañ tëj kër gi ku nekk toxu ñi mën a dem ca weeroo dem ca weeroo ñi mën a dem Amérique dem Amérique ñu tëj Sénégal non du loolu dafa am ñu gëm ne réew ya tekki tey ba tax gone yi di dee pour dem fa Sénégal war na mën a tekkee noonu dafa am ñu ko gëm di xeex loolu walla kulli haal te gëm lañu itam ne dina sotti mhm. léegi nag am na ñoo xam ne li leen gënal mooy ñépp yam waaw dañuy gis koo xam ne bokkul dara ak ña ca des ñu boole leen bu ko dee ci boppi nit ñi ñu ne comme ñépp a yem nanu toog seetaan loolu bokk mais lan lan bëgg wax ci lan nga ci lan nga ci bëgg wax non dafa xam nga sànq nee naa la nit ñi bokkuñu waaw am na ñoo xam ne bu ñuy dugg ci politique wut ndombok tànk ak tur ak daraja ak alal moo moo ko waral am na ñoo xam ne bu ñuy dugg ci politique fexe nga fa ba askanu Sénégal xiqi moo leen ci dugal. bariwu ci de. ñooñu bo ak cee bari. Ah, honorable xam nga lu tax mu bari ci. honorable bari wu ci waaye euh, ñooñu. dama ba su ma su ma kii woon sax dama naan amu ci sax fa may ma tuuti. gis nga ñi ma la wax léegi. ne la ay nguur ak ndomboo tànk ak daraja. Mhm. toq lañu. ci géeju ñi ñi ci des toq lañu ci géej gi ci géeju xam nga lu tax ñi ci des xamu leen xamuñu leen parce que nekkuñu ci rajo yi ak télévision yi ak journaux yi di waja jaji mais fu ñu nekk ñu war leen xam nag. déedéet fu ñu nekk ñu war xam na ci nit ñi di ànd ak ñoom di xeex guddi ak bëccëg di bokk ak ñoom naqar yi c'est la vérité mais ñooñu xamuñu leen ñi ñu xam mooy boroom xaalis yi euh, ami xarit ci journaliste yi di nekk ci télévision yi ak rajo yi et am seeni non Pape Ngagne non non non non demewut noonu de euh, entreprise yu diaboliser classe politique d'ailleurs notion wu classe politique sax man gëw ma ko mhm. waaye am na ñoo xam ne seen liggéey guddi ak bëccëg mooy dugal ci boppi yi ne ñëpp a yem mais su ñëpp yemee jaratu ko bu ko defee ñoom ñu toog ba ilaa yow mi diini toog ba ilaa yow bi diini nekkul ne Macky Sall day toog téeméeri at non mais su fi jógee bu fiy jógee dañuy waajal keneen ku ñëw continuer système bi système bi am na fi juróom benn fukki at mm-hmm. Abdoulaye Wade ba mu ñëwee jéem naa kurkuri jéem a làqarti mais rapidement gars yi dañ ko daal di taxañ Abdoulaye Wade tudd nga ko seen diggante bu ñu bëri xam nañ ko euh, nan nga gisee maanaam euh, joxante loxoom moom ak Macky c'est bien ci bu yemee ci joxante loxo. bu fekkee ne man li ma gëm. waaw xam nga sànq ñi ngi wax ay affaire opposition bi léegi dafa mol parce que ba tey dégg-dégg bi ñenn ñi am ci opposition ak pouvoir mooy toujours sànnentey xeer. grenade yi tàkk léeg-léeg moo am ñu dee léeg-léeg moo am ñu blessé ñoom noonu la ñu déggee. mais mais honorable yaakaar nga di opposition bi bu nooyuloon ah, ah fukki nit dinañ dem pale ñu jàpp leen def kaso te dara xewu ci. yaakaar nga loolu bu amoon opposition bu bu taxaw bu amoon yaakaar nga loolu dina am. waaye ma ne honorable yooyu tam Pape Ngagne <laughs> d'accord. non loolu yaakaar nga ko ah, aussi non non déglu ma rek ma ma ma ma tontu la c'est-à-dire que li ma doon bëgg a wax sax. Euh, kii nga ma boo xamante yaa ngi doon wax rek ci lu jëm ci Abdoulaye Wade ak euh, ak Macky Sall. parce que loolu donc donc politique nga ne ma li nga ci xalaat nga may wax donc politique mhm. dafa war a nekk dafa war a ànd ak dal. ñi d'accordul nekk ci opposition di ko wane di opposé suñu bëggee marche marche bu ñu bëggee meeting meeting bu ñu bëggee manifester manifester mooy seen liggéey. mais politique bu àndeek dal. kii gouverner moom day déroulé. Euh, mbaa xam nga ni day déroulé rek. ah bon kon politique war ta ah, ànd ak dal waxuma politique dafa war a ànd ak xeex butéel yi toj. bopp yi toj nit ñi dem hôpital ñi dem kaso loolay politique. man déggeewuma ko noonu Amérique demeewul noonu. Japon demewul noonu. dal France demewul noonu. Allemagne demewul noonu. Italie demewul noonu dafa dal waaye ñay opposé xam nañu leen programme la ñuy wane ak vision ak projet de société amut saagante ndey amut euh, yi may gis fii non mais ñun mënunoo weesu loolu yaa xayti mënunoo weesu loolu. Mm-hmm. non franchement affaire bi doy na waar ah. mm-hmm. waaw ah, doy nawaar ci wàll yëpp di wax dëgg yàlla doy na waar xam naa ñi ci jaaxle eh, ñàkkul état bi jaaxal na leen waaye comportement opposition bi tam amu ñàkkul ni am na ñoo xam ne jaaxal na leen. mooy kon boo nee doy na waar. mooy lan mooy lan man mooy ban comportement. waaw mais comme comportement bi nga bi nga wax rek ni nga waxee eh, politique dafa war a am dal dal. dal laa la wax donc warta dal. politique warta dal non waxuma waxuma warta dal. c'est-à-dire ah, dal ñu jàpp nit di def kaso yi muy dal. loolu loolu loolu nga bëgg a wax. nga ne dafay war a dal ñuy jàpp ni ñi di dugal ci kaso yi muy dal toujours loolu la oh, mais justement xam nga fii mu ne ñoom lii ñu def nii dana yëkkatiwaat jëye ah oui de la preuve commencé na day yëkkatiwaat jëye parce que ñi nga xam ne dañoo bëgg par exemple man xam nga man damaa bëgg politique bi dal ñii gouverner ñii opposé ñu dem ci élection normal yoo xam ne kenn du ko jalgati mm-hmm. man de jàpp naa ne mérité nanu loolu mm-hmm. tubaab yi du ñu mm-hmm. sunuy sang sunuy nawle lañu mérité nañu loolu loolu laa jàpp man mais yëggagunu ca li fekk yëggagunu ca nag bu fekkente ne ñi yor réew mi doxalewuñu noo xam ne dañu ca yegg ah ñu des ci fii rek xeex jàppante tajal tey bopp tubaab yi dañu fi def lu ñu fi deful ñu ngi dem ci ay élection ngoon élection résultat yi génn le lendemain ñëpp dem ah, liggéey d'accord kon baax na déet may laaj ndax tubaab bi dañ def lu gën lool waay waay waay vraiment Pape xam nga dañuy guddal waxtaan ndax dama non man aussi dama lay laaj honorable ndax tubaab bi dañ def lu gën def élection waaw gisoo fi mu ne tubaab yaa ngi wàcc par centaine de milliers France est-ce que nit ñi sànni nañ leen ay grenades est-ce que duma nañ leen est-ce que toj nañ seen bopp. est-ce que tëj nañ leen kaso. mais voilà c'est tout ñooñu waruloo mën a mel ni ñoom du ñu suñu looloo tax ma ne la affaire nawle la danoo war a nawloonte. Mm-hmm. waaye fii mu ne bu la tubaab bi xoolee benn bët bi sax nga ne dafa rasist te ñoom nañuy doxal yow doo ko doxal. Mm-hmm. fukki nit nga tëj leen kaso jaadu na. Mm-hmm. dafa am lu la ko may rek. ku ko def rek am na lu ko may ah, am na fitu def ko. voilà kon nag baax na kon ba tey noonu la. kon rapport de force rek maanaam. waaw maanaam ñee dañoo euh, dañoo nooy. waaw voilà kon ma teg nit ñi kaso def lu ma neex. waaw ba tey baax na. Euh, baax na. wax nga ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi waxtaan nag ci lu jëm ci jaloog euh, politique di waajal dialogue national bi bari na ay blocage am na sax ñuy wax ni lu ci bëri lu bloqué wu sa loxo génnu ci ci li nga xam ni mooy mooy mooy déroulé euh, dialogue euh, politique boobu tey jii boo ñu doon defal euh, tolluwaay bi lan nga ñu ci mën a wax fan ngeen ci tollu ci. bon ah ci li ma déglu compte rendu bi ñu ma defal tey daal am na blocage. Mm-hmm. am na blocage parce que dañu war a càmbar fichier bi maanaam mm-hmm. ñiy wote. Mm-hmm. fa ñu ne. Mm-hmm. bu doon ndab la mm-hmm. dañ dama naan dañ ko war a dem seet ubbi ko xool la fa ne seet ko bu baax a baax mm-hmm. sur pièce et sur place sur pièce et sur place maanaam boo gisee fii muudu Njaay dangaa war a dem gàdd seet ndax Moodu Njaay mii ñu ne ma nga gàdd ma nga fa ndax am na at yi wote wala ndax ko am fukki at ak ñaar la ñu defaral ko carte mhm. dañ ko war a seet war nañu càmbar processus électoral bi ñu génn mhm. ca mbinduma ba ci proclamation résultat bi audit boobu nag naka lañ ko war a defare ci la blocage bi am léegi lan moo indi blocage bi da ngeen def proposition ñeneen def proposition wala lan moo ko indi waaw dafa am benn këyit boo xam ne ñoom dañ ko d'accord ñoom ñëpp tuddee ko euh, recueil mhm. ku ne dugal ci yow say say say xalaat tuddee ko recueil waaw ah, maanaam taataan ko mhm. euh, fan yii ñu ne direction générale des élections maanaam ñu ne ci ministère de l'intérieur tey toppatoo affaire wote mhm. dañoo bind yeneen beneen kayit indi ñu wax ne ñi fa teewal nguur gi dañ ne kayit googu ci la ñu war a sukkandiku ci la ñu war a sës waxtaan wi. d'accord mais recueil ba lan lañ ci waxoon s'il te plaît. pour ñu xam non la nga. gis loolu rek lañ ci waxoon. li nga gis ci li doxut. ci élection bi yëpp. ok ñu daj dafa bare. loolu déedéet xaju fi. waaw waaw xam na voilà ku mhm. nekk wax na ci li li mu ciy wax. alors mhm. donc am na blocage man defe naa ne euh, président de la république war na bàyyi xel ci li fa xew. Mhm. parce que en tout cas man bi may dugg ci dialogue politique li ma yëkkati woon. mooy fexe ba nun ñépp nu fexe ba delloo si ay sart ak i ponk yoo xam ne ñépp ci mànkoo ba bu nu dematee ci élection du indi jéya mm-hmm. fukk juróom-ñaari at ma di ko wax mm-hmm. te loolu laa continuer di wax mm-hmm, suñu ko defee mooy njariñu réew mi suñu ko defut itam ëllëg ak sibir bu ñu fàtte ne am na ñu ko waxoon président bi ba mu wootee ca élection ba xam nga juróom-ñaari at ñun dañu ne affaire yi. waaw eh, mais bala may ñëw ci message boobu ngay nga bëgg transmettre le président dama bëgg ñu taxaw ci blocage bi parce que blocage bi c'est important li ñu ma wax mooy recueil boo xam ni ñëpp def nañ ci seen ay griefs après nga ni ma euh, direction générale des élections ñoom indi nañ beneen document document boobu ndax xool nga ko lan moo ci nekk lan moo ci nekk. xool naa ko ok. ba document bi defe naa li tax sunu ndaw ya fa nekk ànduñu ci mooy dafa jeng. Euh, document la boo xam lañ ci bind dafa jeng maanaam boo ko jàngee da ngay gis ne dañoo faral gouvernement bi loolu nag yóbbuwunu fa. li nu fa mais est-ce que farteelul farteelul ci bu fekk man document bu mën a doon xanaa euh, document buy tënk ay ay termes de référence lay doon jéem a xool li nga wax ni audit terme yi amagut mais non mais dama xanaa ci loolu document loolu la war a mën a jëriñ mais jeng mën a gula am ci document man li ma jàpp waaw ah, yooyu itam jeng mënu ci am boo bindee ne way de élection bi euh, gars yi am ñu wax lii nangam waaye demewul noonu nee la demee dal di wax li ñee wax nga bind ko kon dañu naan yow ñee nga faral mhm. loolu moo tax ngeen ngeen rejeté document boobu. ah euh, en tout cas daal de gars yi déggoowuñu opposition bi daal d'accord ñu ci euh, façon boobu. d'accord loolu dinaa ci dellu soit mais honorable bëggoon naa xam ci lan ngeen d'accord depuis bi dialogue politique bi ubbi ak léegi. non vraiment nag euh, ay affaires yu bare la mais pour man li ëpp solo Pape Ngañ mooy ponk yeeg régal yi. loolu lijjanti lijjantee ko loolu laa lay wax parce que. fichier bi audité guñ ko procès électoral bi audité guñu ko naka la ñuy wotee est-ce que dañuy am auto autorité. mais mais boo xam ne mooy mais est-ce que fii ba déwén dinañu voté est-ce que kon fii ba déwén mën nañu dem ci élection. mooy mooy euh, volonté politique la cest à bu fekkente ne président de la république bëgg na yëf yi sotti ci lu gaaw mën naa sotti. ci lu gaaw yombal ko aussi parce que ñun pare na non ñun pare na non pare na non mais ñun. xam nga dama lay wax ne la. non mais pare ngeen te document bi jógee DGE ngeen ni boobu duñ ko duñ ko loolu loolu aussi mooy. pare léegi bu nu bañee. bu nu ko bañee ngeen ne ay nga ne ay kon yéen a ngi jafeel bu nu nangoo ñu ne ah kon dañoo nooy <laughs> ba kañ non du loolu quand même c'est des questions sérieuses. Mhm. Euh, yu ñuy seet. Mhm. Euh, il faut que pouvoir bi seet ni mu ci war a mën a taxawee. pour ñu jógee ci difficulté yi en tout cas man li ma li ma jot a dégg waaw mooy ñoom euh, blocage bi war naa mën a ko mm-hmm. mais il faut ñu jëfe ko mm-hmm. ñoom ñoo ci ñoo ko war a jëfee. d'accord léegi lan nga doon wax ci message ci boo nga ni président ngay wax pour mu am ci taxawaay da nga ni président am na taxawaay bu mu ci war a am. ban ah, ah, taxawaay bu parce que quand affaire bi yàgg na. depuis mois de de le vingt le vingt huit mai la ñu la ñu ubbi dialogue bi. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. juin juillet août septembre octobre novembre décembre ça fait huit mois sept mois. te commencé guñu audit bi donc euh, affaire bi c'est c'est très compliqué hein. Mm-hmm. te aussi opposition bi aussi mënul euh, toog rek ñi ñi ñi ñi ñi euh, tendeefal. comme ni ko yi di waxee di tendeefal di tendeefal di tendeefal euh, kooku kooku c'est c'est te yéexaay bi yëpp jàppaloo ni peut-être ñaari wàll yi ko yi ko seq dañoo parewul kenn ku ci ne ci ay élection jàppaloo ni noonu la demee non non non mais attends vraiment Pape xam nga fii dafa am opposition mhm. ak pouvoir pouvoir bi quand même moo yor pouvoir de décision ok am déet mais loolu kon xam ngeen alors mënoo leen a mënoo leen a renvoyer dos à dos maanaam non quand même c'est pouvoir bi moo war a def l'essentiel des efforts pour que problème yi réglé wu. Mhm. voilà donc mais, donc ministère de l'intérieur mi ngi def ay effort moom. comme quoi par exemple. comme ministre de l'intérieur. par exemple non ministère de l'intérieur nekk tout euh, interlocuteur ci affaire bi. Mhm. acteurs yi ñoo daje ak commission cellulaire général ñaa nekk fa di ko di ko doxal. ak ak ñu koy jàppale ñoom Mazid. voilà d'accord mais ministère de l'intérieur amul amu ci benn. benn non non nekkatul vraiment du du vis-à-vis bi daal. Mhm. mais jafelu ci dara aussi. non comme du vis-à-vis bi. ok d'accord bon fa peut-être looloo tax xëy na directeur général des élections dugal. loolu dugal tout à fait parce que ci ci tutelam la nekk moom ci tutelu ministre de l'intérieur la nekk direction générale des élections alors donc. leneen loo xam bëgg naa ñu aborder ko honorable député mu aju ci euh, mandat wu président de la république dama dégg euh, maître Robert Bourgi am lu mu ci wax moom nag ñaare xam nga boo ko déggee muy ci Sénégal muy feneen euh, daanaka waxam dafa am lu muy lu muy junj dégg nga interview bi nga xam ni mujj na ko def ban jàngat nga ci am wala gisuloo ko loolu. liir naa ko dama wax ne Robert Bourgi. dama ko bi may ñëw xamoon naa ne di nga ko di nga ma ko laaj. da nga ciy bind kon. ma bind ci ma ne. ce monsieur est un pyromane un pyromane de la pire espèce. il a un mépris renversant pour le peuple sénégalais. Robert Bourgi n'est l'ami de personne parce que dama dégg ñu naan c'est l'ami du président il n'est l'ami de personne il n'est que l'ami de sa poche. et de ses maîtres de la France Afrique kookoy Robert Bourgi euh, bokk na ci ñi fas yéene taal réew mi. parce que nee na Macky Sall mësut wax ci mandat te Macky Sall wax na waxati waxati waxati. Mm-hmm. deux mandats consécutifs kenn mënta def lu ko ëpp. ba may def sama discours ca palais présidence de la république dama ko ne. duma ko tudd mandat bi parce que réglé nga ko foofu la taxaw ba léegi nit ñi bëgg dugal ci boppi sénégalais yi pendant cinq ans que trois ma troisième mën naa ne ñu di ko waxtaan grand place yeeg naanukaayu attaay yeeg salon yi ànduma ci Robert Bourgi loolu lay liggéey bokk na ci ñu ne nar a taal Sénégal il faut que jeunesse bi xam ko il faut que acteur yépp xam ko loolu lay tontu Robert Bourgi Euh, kon jàpp nga ni wax waxu troisième mandat ànd nga ak camp présidentiel bi nga xam ni ñoom pare wuñ pour di ci digg di aborder sax question boobu. c'est pas le camp présidentiel c'est Macky Sall. c'est Macky Sall. non li ma bëgg a wax mooy dañu remarqué ci camp am ñu képp koo xam ne abordé nga camp bi euh, abordé nga. plutôt ña daane woon Ablaye Wade daal. defal troisième mandat ngembal Karim Wade fii la xar yi jaar ginaar yi jaar fii boobu Abdoulaye Wade nërmeelu mhm. ña nga wër Macky Sall waaw ba ñu wotee 2012 kanoon Abdoulaye Wade gañe na cinquante xaw ma ñaata pour cent premier tour mu nga ca Macky Sall ak ña ca des. Ah, sa gàmmo bi nga bëgg a wax ak sa gàmmo bi nga bëgg a wax xanaa. donc vraiment dama lay laaj aussi honorable dama ne xanaa sa gàmmu bi Serigne Mbacké Ndiaye nga bëgg nga bëgg a wax foofu c'est-à-dire hmm. doomu aadama dafa am solo wala xadd karam naa banni aadama hmm. yàllaa ko wax hmm. su dee gëm nañu yàlla àjjana ci doomu aadama yi léegi nga koy ame ci nga koy ñàkkee wanu bëgg jël mbiri doomu aadama yi def ko affaire caaxaan affaire fo affaire non vraiment c'est pas ça hein est-ce que loolu bokkul sax ci li tax nu tarde mais ba ci wax sa xalaat aussi ba ci wax sa xalaat dafa am fu mu yow war a yem. pour yow wax sa xalaat dafa am fu mu war a xam nga tubaab yi par exemple moom mu wax xalaatam wax yéeneem pour yow dafa am fu mu war a xam nga tubaab yi waaw. Euh, ñoom ñu fonk doomu aadama lañu. Euh, nu nag euh, bari nañu ci suñu biir ñu këpp këppal. waaye fa la mm-hmm. loolu la ñu war a seet mm-hmm. donc ba honorable man bu ma la déggee dafa mel ni yow mandat bi amoo ci dut maanaam sa xel teeyu ci sa njot ñaawu ci non pour pourquoi pour mu di ci ñaaw nañ wax leneen ok c'est-à-dire man sa discours bi daf ma jox discours ku bokk APR nañ wax leneen ci mandat bi ni ñu ci tontoo nii ñoom noonu lañ ciy tontoo. ah noonu lañ ciy tontoo. ñoom noonu lañ ciy ah, tontoo d'accord kon nag nga boole ma ci ñoom. déedéet non de dama lay non man noonu lañ ciy tontoo. man ah, discours bi loolu rek la ma jox. kon nga boole ma ci ñoom. c'est-à-dire mel ni da nga ci bëggul wax da nga jàpp ni rek li ci président wax. doy na ci mais pourquoi nga di ci wax. nee na la mënut a ne ñaari mandat successif kenn mënut a def lu ko ëpp. wax ko waxati ko waxati ko waxati ko nga ñëw ne ma wax ci duma ci wax surtout tout. <laughs> loo junj léegi ci sa biir wax nanguwoo ci xuus bu baax sax da nga ni rek ñi nga xam ni ñoo doon xelal Abdoulaye Wade ca troisième mandat boobu daanaka ñoom ñoo ko wër moom ma président Sall tey da nga jàpp ni daf ci war a def attention kon ci loolu. moo xam muy def moo ko xam. <laughs> d'accord oh, honorable euh, vendredi incha allah beneen marche ñi ngi ko fas yéene mu jëm ba tey ci Sénélec ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi. yaa ngi waajal marche boobu ak lan nga gis aussi laaj naa la ko tout à l'heure euh, bi dafa war a gën a continuer. non man organiser wu ma marche bi. Mhm. ñi ko organiser dañuy invité ma ma dem en tant que citoyen. Mhm. léegi na muy demee lu muy kéeg yooyu ñoom ñoo ci war a tontu da nga leen koy laaj. Mhm. maintenant front de résistance nationale bi am na coordinateur Mokhtar sourant mu nga woon ca euh, ñi doon euh, jël parole ci marché bi passé mën nga ko laaj aussi mu wax la ci. d' accord euh, ñi ngi jëm nag euh, ci euh, wax nga ko wax nga ko tout à l'heure ci assemblée nationale daanaka marathon budgétaire bi jeex na ñu jëm nag ci coow loo xam ne xëy na mën naa mu mu continuer mën naa mu jeex mooy li nga xam ne sulleeku na fa ci wàllu mbay mi ak coow li nga xam ne yëkkati nañ ko fa yaakaar nga ni loolu itam lu war a mën a am ay poursuite la maanaam yoon war na ci am wàll. ni ko nit ñi xam nga Pape Ngagne man daal man daal Hmm, xam nga philosophie dañuy wax affaire épistémologie euh, philosophie des sciences maanaam xam-xam jaar-jaar yi muy jaar bay dugg ci bopp nit euh, ak yu mel noonu euh, Sénégal ñenn ñi bu ma déggee ñu di ci wax dama naan est-ce que ci Sénégal la ñuy wax xam nga que ne ma way est-ce gars yi duñ ci ñu ci enquête ak mais ñi koy def nee naa la nit ñi jàpp nañu ne justice du seen justice. waa ëttu attekaay yi du pour ñoom. Mm-hmm. dëgg la kon Guy Marius Sagna du nekk ci kaso ba ak docteur Babacar Diop. Mm-hmm. alors ñi nga xam ne jël nañu subvention bi séddale ko seeni gars yi nga ne leen non yéen euh, nañuy enquête est-ce que am na sens. non dinañu wax li nu war a wax. waaw waaw loolu def def li nu war a def. mais du la léegi déposer naa question orale. <laughs> sur ci affaire drogue drogue bi waaw. demander commission d'enquête. fu mu toll fu mu toll. ah mais <laughs> naa la ko laaj nga mbott genn ba. Mhm. mais lii aussi est-ce que mérité wul commission d'enquête. waay waay waay waay waay waay xam nga ne li mérité commission d'enquête kay du jeex du xaaj loolu kay bokk na ci ah Moussa loo ko wax te xam na li mu wax mais du ci du ci am du am. du am parce que foofu la ñu toll jàpp nañu ne euh, looloo baax alors bu ko defee bu nuy wax ci yooyu mel ni dañuy wax ci réew moo xam ne. dafa am yoon ci respecté yoon mi ngi dox comme France ñu accuser nit wala Allemagne wala Amérique wala Japon wala alors que du loolu ñun fi nu ne bokkut fi nu ne leneen la. d'accord te amul benn rôle bu ci opposition bi am aussi taxawaay. mooy xeex pour lii ñu déjjati ko déjjati xam nga boo demee ay Haïti dañuy wax déchouqué. Mhm. dañ koy dañuy déjjati maanaam reen yi jógaale. ñu teg ko fee def leneen li feeg defuñu ko maa la ko wax feeg téeméeri at encore ca kanam fii la ñuy toog di ñaxtu dañuy sax gën a dellu gën a ñu bari defe nañ ne euh, non fii daal moom mënatuñu ko weesu si mën nañoo gën a delluwaat te ginnaawati encore su su fekkee ne mm, taxawunu ni nu war a taxawee. Mhm. d'accord jërëjëf honorable député bu fekkee am nga message boo xam ne nag moom nga bëgg a askan wi ma bàyyi la nga def boobu. message waaw maa ngi maa ngi lay gërëm rek di la mhm. sant Pape Ngagne di wax ne situation réew mi daal war nañ ko jël au sérieux mhm. euh, bu ma xoolee li xew barki démb Niger. juróom-ñaar fukki soldaar ak benn ñu fetal leen ñu dee mhm. ak ña nga xam ne dañoo euh, sànku kenn gisu mhm. leen mhm. ak ña blessé ak na mu xewe Burkina Faso xewe ko maali danoo war a jastandiku danoo war a seetaat sunu taxawaay ak sunu toogaay loolu nag ñi jiite réew mi ñoo ci war a jiitu ñoo ko war a dox euh, am nay jamono ma gisoon vraiment euh, li président doon waxee doon taxawee et cetera mais dafa mel ni ci jamono yi wax yii may wax wax yii may tudd euh, dafa dem ba xaw a jaxase affaire bi man mm-hmm. lool lool la may nirool néew lool la mel loolu la may nirool mm-hmm. loolu nag bu fekkee moom la moom ma jàpp ne kon euh, affaire bi warees na cee mën a jàq mm-hmm. yaakaar naa ne Sénégal fi mu toll parce que réew yooyu yëpp bu ci ne jaar nga ci régime militaire ay coup d'état ay soldat ay et cetera ay Sénégal jaaru ci mm-hmm. kon war na noo mën a am nun expérience ak capacité pour li xew ci réew yooyu mën a mucc ñu mën a mën a Sénégal mën cee mucc mm-hmm. waaye nag gisaguma dëgg dëgg dëgg dëgg ñu taxawe ko loolu bokk na ci li ma xaw a tiital waaye nag nu am itam yaakaar parce que xëy na aussi am na daal euh, histoire am culture boo xam ne mi ngi ci réew mi boo xam ne mën nañu bu ñu ci sukkandikoo fexe ba génn ci jërëjëf euh, jërëjëf mbokk yi mu nekkoon honorable député euh, Mamadou Diop Decroix jiite AJ ñu am mbégte euh, doon ko recevoir mbokk yi tey ci seen émission faram fàcce ak télévision Futur Média ñu leen di jox rendez-vous incha allah alarba ba di ñëw bu ci yàlla jër jërë ngeen jëf. yi nga xam ne liggéey nañu